xamante ni dañ ko waxtaanee ci jotaay bi mu di ban yéenekaay mm, njëgu dund gi euh, Cheikh donc boo ci jot rek buy wax ci njëgu dund gi ñu mën cee taxaw voilà merci beaucoup Cheikh ba ci kanam euh, ci yëglekaay li ñu xëyee ci yaatal bi alors euh, Chérif gis nañ ko démb service du commerce dañoo wàcc ci terrain bi ngir fexe ba jaaykat yi rawatina ñi nekk ci ko ñi muy boutique yi bu ñu appliqué wul prix bi ñu mën a nangu seen i marchandise mën leen ko forcé démb itam ñu ngi wax wàllum boole bi maanaam bind nga woote boole dégg nañ benn soxna sànq sax ci benn reportage nee na loolu day nekk lu jafe ndax lii dina woy Chérif. loolu ala kulli yàlla dafa war a wéy parce que am réew buñ ci nekkee yoon moo ko tënk comme génn nañ arrêté yi waxtaan am na ñëpp war a tënku ci dogal yi nga xamante ni kon gouvernement bi jël na ko à travers ministère bi ñu dénk wàllu commerce ak consommation te loolu il faut quand même qu'on s'adresse aux commerçants ñu daal di delloo si seen xel ñoom it xam ni réew mi ñun ñëpp a ko bokk. te ñoom it dañu am loo xamante dafa warloo ak seen diggante ak askan wi parce que bu fekkante ni woon dañuy yokk njëg yi ñoom duñ xaar di écouler produit wala li nga xamante ni moom la denc boutique yi ba pare ba mu jeex dañ koy yokk ci saa si donc comme comme l' nag elle doit être immédiate dès l' instant que arrêté génnoon bu arrêté génnoon moom nga xam amul benn base légale munoo ne da jëfe wante comme depuis samedi. Mhm. la arrêté génn dañ ko war a jëfe ku ko jëfewul nag li yoon wax ñu daal koy def moo tax il faut saluer liggéey bi nga xamante service commerce yi def nañ ko dé mu dugg ci marché yi contrôle ndax lépp jaaroon yu sax soxlul contrôle il faut que les gens soient li nga xamante ni moom mooy wàññi yi dafa amoon ay concertation ñoom commerçant yi ils avaient des représentants ci li nga xamante moom mooy commission yi ñu jël fa ay dogal jël fa ay engagement yoo xamante kon dañ ko respecté nit góor nag ca wax ja et puis loo xamante tamit loo xamante ni moom moo ko jëloon teg ko ngir wàññi wala soulager ménage yi ñoom dañ ci war a jàppale ñi nga xamante moom mooy nit ñi su ko deful nag lii lay mujj maanaam di dem ay magi jëm ñuy jël say marchandises di ko saisir beneen bi comme ni ko soxna si waxee ñoom commerçant yi yenn saa ci koñ yi ñoom ñooy lebal nit ñi wante lebal nit ki taxul nga teg ko loo xamante comme am nga comme ay sapeur ay yooyu voilà su ko defee voilà yomb bu ko defee nit ñi dinañ mën a gaaw di boole koo xamante daal jëfewul li ni mel ñu daal lay teg ay daan loolooy dëgg mm-hmm. commerçant yi tamit nañ wax ak seen mbokk yi ci nga xamante mooy wàllu situation am am na ñoo xam ne ils en profitent alors il faut être benn moment solidaire ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi mm. jàppalante bi. Mm. mais solidarité boobu nag loolu moo def défaut Alaaji Malick parce que bu ma jëlee exemple ci jamonoy koor réew yi nga xamante dañuy woor ñoom booy xool ci koor gi ci la ñuy profité di wàññi di oyofal mais Sénégal c'est tout à fait le contraire événement bu amee que ça soit tabaski korité koor wala leneen ak leneen ñoom ñoom euh, voilà màggal ak gàmmu ñoom ci la ñuy profité pour yokk. waaw loolu moo doy waar euh, soxna naata parce que lii am nii muy contrôle des prix. Mm-hmm. loolu moo war di am saa su nekk. parce que man ci jamono. maanaam ñuy def descente yi tout temps de façon régulière maanaam warul nekk ni. état jël na mesure. Mhm. dañ ko war a nañu wàcc ci terrain bi vérifier. d'accord c'est-à-dire ça doit être des des des des maanaam ay descentes inopinées lay nekk man ci ay jamono loolu laa daan gis. oui ñun suñuy temps ñun ñi nga xam ne fekkee nañu démb macha allah. <laughs> macha allah euh, <laughs> waaw ñëwoon démb. <laughs> ñëwoon démb ñun ñëwoon démb loolu contrôle de prix ñëw na ci koñ bi. Mhm. sama yaay daaw di contrôle de prix ñëw na bu ko defee bitikee bi day daal di tëj bàyyi ba ñu romb mu soog a tijji waaw euh, système boobu ñoom lañ daan def. mais ak service d'hygiène ñëw na mhm. donc contrôle war di am tout le temps. warul warul warul tomber rek ak période bu nga xam ne mm-hmm. état jël na mesure nañ ko xool donc les prix doivent être stabilisés à mm-hmm. tout moment et à moment les services du commerce dañu war a jouer seen rôle maintenant lii comme li Chérif wax léegi dafa am waxtaan dañu waxtaan waxtaaj wax lu nga xamante nii moo mën a nekk ak li mënul nekk commerçant yi am fa ay représentants ba ñu juboo ci ne lii de mën moo mën a am état def lu mu war a def subventionné lu mu war a subventionné wàññi prix yi donc tey l' nu ne doit pas poser problème am na soxna su ko wax sànq ci reportage bi buñ ne yokk leen ñu yokk bu ñu nee wàññi leen nañu wàññi. ñuy tendeefal ñuy tendeefal je pense que euh, tey jii loolu moom mooy li war a am leneen li nga xam ne moo anormal mooy li nga wax léegi soxna naata wax dëgg yàlla Sénégal ñun ñun ñun dañoo noot ci côté yëpp. wallaahi wax dëgg yàlla lu am dañuy noot. Mhm. bu màggal amee ñu noot ñu. Mhm. bu gàmmu amee ñu noot. bu ki ñëwee ñu noot ñu. bu événement bu am lu am dañuy noot et on subit. on subit comme ça et ci moment yooyu aussi contrôle dafa war am. ci moment yooyu aussi dañu nañ ñi ngi ñaan les services de contrôle ñuy wàcc ci terrain bi ci moment yooyu di raaxaloo ak askan wi di xool li nga xam ne moom la ñu def parce que dañ doon ñëw naata civil dugg ci bitik ñu jaay ma. Mhm. boo nee jaay ma. mu jox la njëg bu nga xam ne dëppawul ak njëg yi nga génne sa carte. ne ko man la service donc loolu bu ñu ko doon def. tout le temps dina dina dina dina wàññi lu bëree bëri moment yooyu bu amee agent yi dañu war a wàcc ci tere xool ñuy yokk prix yi ñu dal ci seen kaw mm-hmm. boole ñun ñoo amul culture boobu parce que dañ lay jàppe ni yow naata boo boolee saytaane nga waa ba jiiba nga. yooyu la ñuy wax alors que. boo dematee ci boutique bi di leb ma ne la du ma la lebal yow yaa ma boole woon du ma la waa koñ bi di xool saytaane bi ma nga ne moo dem boole borom bitig ba alors que borom bitig bi tey li muy def teguwul ci yoon wax dëgg yàlla nag na na na ñu teg affaire yi ci yoon. Uh-huh. maintenant boo demee ci détaillant bi da lay wax ni grossiste bi moom la nga dem ci grossiste bi mu ne du ci man uh-huh. maintenant il faut que. nan la la il faut que toute pour que les prix soient baissés moo aussi bien ci prix denrées yi que ci prix lo loyer bi mhm. waxuñu ci de waaye tamit am na ay mesures yu jël yu nga euh, xam ne bailleurs yi appliqué wuñu Momar Ndao nee na d'ici fin du mois de novembre nest pas loolu la wax ci la ñuy commencé bu jotee tamit nañu appliqué baa ñu dénoncé parce que suñu gafaka la jël di ci jënd suñu gafaka la jël di ci fay luyaas na nit ñi appliqué te yërëm askan bi sonn nga doxaat peut-être 100 mètres 200 mètres gis beneen boutique kii bu la jaayee gaz ñu ngi naan 4290 euh, par exemple bu 9 kilo bi. Mhm. Euh, mu ne maanaam 4300 mën nga dem keneen kooku ne la 4500 de suite. Mhm. waaw loolu laa doon interpeller dem Momar Ndao ci li nga xamante ne moom mooy système libéral bi ñu nekk mooy que finalement spéculation des prix nu ko nu waay neex la koy la koy defee. Euh, loolu waral genre action yu mel nii am na am na solo. et ce serait pas mieux d'afficher quand même. oui am mais am na ay boutiques yo xam ne ñu ngi koy def boutique bu nekk ñu affiché. c'est ça c'est mais loolu beesul ah loolu loolu je pense que am na ay mesures yi nga xamante ne yu yàgg yu ñu doon faral di jël dañu doon affiché prix yi ci boutique yi mais taxul ñun continuité lañ xamul. voilà c'est ça le problème maintenant euh, c'est bien beau comme ça on attend pas moins d'un gouvernement mu jël ay dogal ba pare di jéem a xool nu muy def ba appliqué ko justement loolu la ñu doon xaar ci gouvernement mais c'est à se demander fii ba kañ euh, la nar a poursuivre action action yi di puis bon comme ni ñu ko waxee am na tamit ay jafe-jafe même si commerçants yi léeg-léeg mm, nañ ma baal ci terme mais ils exagèrent un petit peu yenn augmentation des prix euh, c'est quand même trop élevé donc euh, xel mën na nangu peut-être li ñuy kenn ci boutiquier li mu wax sànq ci reportage maane bi donc mu ngi concertation, mais est-ce que on a concerté vraiment tout le monde Tout le monde s'est euh, tout le monde s'est vraiment véritablement tout concerté. Monde, euh, voilà, tout le monde a été euh, effectivement représenté. Voilà, c'est ah. ça tamit donc euh, loolu tamit loolu tamit jar na leeral. Mm-hmm. toujours est-il que je pense que comme ni ñu ko yàgg waxee tey ñu ñu appliquer li nga xamante ne moom mooy effectivité des prix yooyu noonu moom mooy moom mooy arrangé ñëpp que ce soit même le commerçant bi nga xamante ne moom tamit am na njaboot gi muy gi muy dundal donc bu loolu weesoo rek nañu fexe ba xool. ni ñuy def comme ni ñu ko waxee rek ba grossiste yi tamit à partir de là mbir bi mbir bu jógee foofu noonu. après et puis li ñuy ceeb bu waxuma la ceeb sax mais Ibou. et puis am na ci yenn commerçant yoo xam ne sax dañuy dem ba produit bi dañuy bañ ne ñu ko jaay suukar bu mokk par exemple am na boutique da ngay dem di jënd ñu ne la déedéet aw ko. exactement li nga wax nii mën naa confirmer parce que démb am na ci kenn ku ma doon waxal mu ne ma. bu demee ci grossiste bi par exemple prix bi ñu imposé bu fekkee mënu ko jaay loolu moom il va pas prendre le risque. de le prendre voilà da ngay sentir boutique yu bëri da ngay ñëw naan sucre ñu ne amul. donc euh, rupture peut-être euh, euh, nañu gars yi jàppale tamit jàppale gouvernement bi. Mhm, parce que ñun ñëpp askan mi lañ fi nekkee. leneen li ma bëggoon wax léegi soxna naatam mooy le problème numéro vert bi gis nañ ni ñun dañu am problème dénonciation parce que liens yi la xëy na. parce que gis nañ léegi ci communiqué bi ma doon liir euh, waa gendarmerie nationale ñu ngi sàkku ci askan wi ku gis lu la ëlëm nga teel a woote bu ko defee balaa muy indi ay jéey ñoom ñu def li ñu war a def loolu moo am fépp ah. mm-hmm. parce que gis naa ne li kilifa yi wax ba joxe numéro vert fi mu ne nii li nga wax léegi koo ci dénoncé dañ naan seytaane baa ngi na ñoom am nañ ci ñaar euh, bu njëkk bi sax yomb na comme ni doon waxee 123 bu gendarmerie nationale bu njëkk bi beneen bi 800 mm. euh, euh, ci taxaw ci kanam doy na waa torop kay Alaaji Malick vraiment et puis di féliciter gendarmerie nationale également ndax lii moom boo ko déggee sax dafa mel ni ku nekk ci ay film comme ku nekk ci film bandi ni ko xale di waxee merci Ibou ayoo dañuy jaar ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde